asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ànd di seetaan Info 15 TV yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar seen mbokk Oustaz Mansour moo ñëwaat ci seen waxtaanu diine di waxtaane itam tomb yooyu nga xam ne ndénkaan yooyu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon jox suñu mbokk jaabir xam nga wax naa la ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa dénk jaabir ci weeru koor ndénkaane yu bari te bi nee na ina siyaama laysa min attaam wa sharaab waxdahuma fa isaa sumtum faxfazu alsinatakum an ilkasbi wa qaddu abshaarakum xamma arama allah wala tanaashahu xam nga yonent bi neena na jaabir mu ni ko koor daal nekkul bàyyi lekk ak naan rekk waaye bu ngeen wooree wattu leen seeni làmmañ ci wax lu dul dëgg gëmm leen seen bët ci xool lu yàlla araamal te bu leen xëccoo bu leen bañante bu leen jëwante bu leen werante bu leen wuute woni bulen ŋayante bulen sagante itam te bulen toñante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa bañ yoy yépp ci jambi mu tere ko itam kon bu ngeen woore rawatina mu wax ni jaabir mu naa mu ni ko soo wooree na nga taqoo noppi a sumtu wa sukut na nga noppi na nga cellentu na nga muñ nanga nga dëggu moytu nit ñi nga xam ni waxkati safaan lañu nit ñu bon la dawal wax ju bon dawal wax dul dëgg dawal xuloo dawal njort bu ñaaw dawal jëw dawal rambaaj yonent bi sallallahu alayhi wa wax jaabir ni ko na ngeen xam ni yéen ñëpp yàllaa ngi leen di dig diggéel boo xam ne mu ngi leen di xaar pour ngeen wuyusi ko ci wooteem boobu ci biir weeru koor ndax ñu ñëpp ay gane yàlla lañu ci weeru koor kon nag mu ne ko ku jëm ci yàlla dangay dal te it da ngay am wegeel da toroxlu te dangay ragal yàlla wàcce sa boppu nekk jaam mu ne ko jaabir mu naa mu ne ko ah nanga xam ne nag képp kuy woor dangay seetal sa xol ci bépp sikk ndax yàlla limu mu soxla mooy jaam boo xam ni xolam day set wecc kon mbokk jullit yi koor dafa nekk loo xam ni dafay defar jullit bi ñu soxla mu nekk aarif bi la nekk ku ragal yàlla nekk ku delloo boppam borom bi subhaanahu wa kon loolu lañu soxla ci ki nga xam ni e, dafa woor boole nag di ñaan fu mu tollu yonent bi daan na wax ñaan leen lu ngeen soxla ci biir weeru koor ndax weeru ñaan la mu ne ñaan leen lépp loo xam ne seen bëgg-bëgg la ci biir weeru koor ndax weeru koor dafa bari ay ngëneel ñaan leen su ngeen jullee seeni farata moo tax daan na wax digle ñuy def ñaan gi suñu jullee ba pare di wax yaa ali ya asimu ya qafuur ya rahimu anta rabbul azim alladi laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ñaan boobu daana ko digle ñu di ko ñaan suñu jullee ba pare yaa aliyu yaa asimu yaa xafuur ci biir weeru koor naka la ko daan ëpp lum koy def moo tax ñaan la boo xam ni imaam ali nee na képp koo xam ni soxoo na ko ci weeru koor yàlla dana la defal tawfiix te it ñaare soxla boo ci yéenee balaa weeru koor a dewoon na delsi lum soxla ba rëy rëy ñaare yàlla mën naa def yàlla na la ko fajal dañu wax ni benn taalibeem bu ñuy wax bu ñuy wax euh, Salman bokkul ak Salmanul Faris waaye salmaan bi ibnu Ushama la Ushama moo ko boobu euh, dafa musoon a laaj imaam Ali mu ni donte sax aj màkka xam naa booba xel ma nekk ci yoonu màkka mu ni ko donte sax aj màkka lañ ci ñaan mu ni ko ah, te booba mu ngi booba Alioune mu ngi ci Irak ci Koofa te foofu dafa sori ak màkka seulement ni ko ndax donte buñ ci yéenee aj màkk yàlla dinañu ko may ci at mi mu ni ko waaw mu mel ni ndeysaan ku koy tiiñal rek daldi ñaan ñaan ci aj màkk waaye boo demee ci mafatihul jinaan ba imam ali dañ lay wax ni la ci at moomu la salmaan dem màkk kon su ko defee kon muy nekk ñaan goo xam ne ñaan gu am solo la kon mbokk jullit yi e, ñaan lu am solo la ci biir weeru koor susu nag bu jullit bi setalee xolam wecc leeral xolom delloo boppam yàlla génne lépp loo xamante ni du yàlla ci moom fob boppam jox ko suñu boroom subhaanahu wa taala ba mu jeex takk mu tàllal loxoy ñaan fekk mu ngi ci koor sunu boroom subhaanahu wa taala koy nangul ndax ci commencement xutba yonent bi waxoon naa la ni yonent bi neen na ñaan gu ñaan ci weeru koor yàlla daf koy nangu ndax wa du'aakum mustajab yàlla moo leen garanteel ci weeru koor seen ñaan nekk loo xam ni dañ koy nangu kon mbokk jullit bi setalal sa xol wecc jox sa xol yàlla ba mu jeex tàkk ndax yàlla kat wax naa la ne benn jàkk rekk la am ci kaw suuf te nekkul jàkk yi nu tabax ñun waaye jàkk bi mu tabaxal boppam la te mooy sa xol bi wa anna al masajida lillah qul yi sunu borom subhanahu wa taala moko mom kon fala ma allah ahadan kon sa xol bul fa jamu kenn kuddul sunu borom bu fa duggal kenn kuddul sunu borom subhanahu wa taala kon bokku julit mi koor liñ ci soxla mooy julit boo xam ne mat na li mu doon bu génnee ci weeru koor nekk julit boo xam ne mustaqima la julit bu jub nekk julit boo xam mutaqin la ku ragal yàlla la ndax yàlla ne la alakum tattaqun ndax su ngeen génnee ci weeru koor nekk julit bi ma soxla nekk ku ragal yàlla kon mbokk julit yi weeru koor a ngi noonu nekk weeru ñaan yal na nangul ñu ci lépp lu ñu ñaan nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ñu ñuy seetaan ci info 15 yëpp di nuyu seex di nuyu mbooleem eh, jullit yi di leen wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu